alors animation xale xëcca xale rap xale musique xale dama mel ni DJ xëcca bëri doole mel ni DJ xëcca fi ma koy yëngal di ko mama xëcca commencé na xëcca commencé na ay waay sama doom mesdames Fassila Kheucha from Saint-Louis du Sénégal. franchement ça c'est sucré. def leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen. Ah, du lundi au jeudi de 11h à 13h sur la 2STV. Ne le ratez pas. xale ya taajaboon mag ñaa ngay taajaboon taajaboon yi taajaboon xale yaa ngay taajaboon mag ñaa ngay taajaboon ndeysaan Grégoire taajaboon ku ci nekk ak na nga koy waye ñun ñi ngi ko daan waye taajaboon salsalaboon woon mali malaykala ci kaw lay jóge bii ci kaw bii ci suuf bilay sarax duudu wundu bilay sarax duudu wundu bilay non ndeysaan ay waay jamono jamono neexatul jamono dëgg jamonoy taaja boon heure bii daan na fekk ndeysaan ñu dem wuti ay der waaw parce que ci dimanche bi la xale yi daan defaru waak samedi bi maanaam bu den ne deux jours rek gars yi wuti seen ay der yu baax dem fooral ko wut ay po yu ndaw def ci ay tama mais léegi loolu amatul xale yi foowu leen foowu leen der bu am taw mi yàq na ko léegi léegi der taw moom yàq na der yi fi ne woon yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp quel plaisir alhamdulilahi rabil alamin bi ñu ko fekkee jàmm fu waay mën a toog rek ñeel alhamdulilahi rabil alamin bi suñu borom defee nga fekkee ko euh, te tal ko itam yàlla nañ ko yàgg a fekkee ay dëwëni dëwëni dëwën yàlla dogal euh, euh, negéeni dëwën ku ci nekk rek ñi nga xam ne ci xale jigéen ñi amagu leen jëkkër mu fekk leen seen biir seen biir kër jëkkër ngeen di bom bomb cere ji ah bu fekkee ni tamit xale góor yi la yéen yàlla yàlla defal leen jàmm ngeen dem ba mu nekk fekk leen seen biir kër bomb bomb bomb ak cere ji ak seen jabar Grégoire euh, Mbaye Dieye Faye dafa am lu mu woy ci lu ci taaja bon lu doy waar jéem koo nekk nekk ci nii actuellement euh, ndaxte fàtte naa ni tey euh, waruñu maye dara laata may nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan à l'étranger en France Italie Belgique Hollande de l'autre côté aux États-Unis en Allemagne Suède ñi ngi leen di nuyu di nuyu waa Espagne bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay ñoom itam mais également tout ce qui regarde de l'autre côté Mali Burkina Faso Bénin Côte d'Ivoire euh, Zimbabwe Cap-Vert Libreville Franceville l'autre côté foofu nga xamante ni moom moo bissau Guinée Conakry ñëpp ñu ngi leen di kontaane bu baax baax a baax di leen jox seen wàccuwaay Mauritanie marhaba bikum assalamu alaikum and all Gambian people my second family I know for well you love me and you know for well that you love you we together same ba na maa ngi leen di bu baax bari ci yéen ñi ngi doon jubilé ñi ci bari ci yéen également amoon nañu lu leen metti waaye euh, ku ne xam na ne ndam li fii la des muy Sénégal euh, di profito di nuyu képp kuy supporter euh, Balla Gaye 2 waaye di supporter Gris Bordeaux di leen wax ni lii mooy àddina lii mooy làmb te làmb faw kenn daan jël faw mu am pour que ñett ñi xam ni lii mooy làmb kon nag ñi leen di féliciter davantage di leen nuyu waale baax a baax a baax j'espère quand même que vous bien et que tout se passe bien ndax dinaa indi ambiance waa Grégoire waa dinañ indi ambiance dina dellu ci affaire yi challenge yu bees yi trop de choses à vous dire yoo xamante ni euh, ci kàttanu yàlla di ngeen ko am laata ñuy nuyu waa Ndakaaru Ndiaye jal Diop sango ni nañ ko waxee léegi ci Sky benn dëkk ñaari gaar fàttewunu waa Sédhiou Bakel Richard Toll Dagana Saint-Louis du Sénégal Lougaloo waaye également de l' autre côté foofu ca Tamba waa Kédougou waa Ziguinchor ah waa Fatick yéen waa Mbour waa Tivaouane Touba Mbacké Bawal yéen ñëpp ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax waa Soumbédioune sax nuyu nañu leen jox leen seen wàccuwaay j'espère quand même euh, que yéen a ngi toog di euh, xaarandi tey la lundi et comme tous leen lundis dara du yomb mais juste avant ça nous allons essayer euh, dem suñu séance d'étirement gré bu ñu ci demee ba ñëw nag ñu daal di leen présenter le programme du jour mais en attendant prépare ce que je t'ai demandé si c'est bon les amis on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 xëcaa xale rap xale musique xale dama xew mel ni DJ xëcca bëri doole mel ni DJ xëcca fi ma koy yëngal di ko yëngal ba ñëpp ne mana waaw waaw yo ok ah jugee ndar dugg Cees gaay Luga loo Jurbel Tamba jàpp Fatick fële Kaolack Kaffrine dem ba Matam Ziguinchor Sédhiou Kolda Kédougou Grégoire suis un peu suis suivral sama séance d'étirement ba noppi nga doog a nekk ci li ngay nekk yi mooy yan yow xam nga yow xamala la munoo nekk ci weekend bi xaw ma foo nekkoon ci weekend bi ne fii di nelaw rek abel sax moo ñëw fii di la yee bàyyi sa nelaw yi fii liggéeyu liggéeyukaay la ne da ngay Grégoire day ñëw ba ci bi di fa nelaw <laughs> ba ci régie bi régie bi régie régie régie nga xam ne kenn waru ci nelaw Grégoire di nelaw ci régie bi abel la ñëwu ni ko mais yow li ngay def nii tegoo ko na parce que fii bërëbu liggéeyukaay la maa fekk Abel di ko wax loolu xam nga loolu kon naaysul arrête ci régie régie régie régie kan moo ciy nelaw gërëm gaal kan mooy nelaw ci régie li nga def nii ah ni ngay def ba levier dégg la fii indi lay jafe-jafe yu métti <laughs> doo am jàmm yow doo am jàmm régie bi moom moom mooy mooy mooy neexal émission bi régie bi nga nelaw nii tey loolu di ngeen wax le pourquoi gërëm gaal yow nga nelaw ci régie bi te. tant que waxoo du ma du ma bàyyi alors xoolal leen ma ligne bi ci 88 628 14 13 ou bien sur 33 841 23 34 veillez ci seen ay bagage ndax taw bi day jékki saa rek taw xool leen seen yére yi ngeen xool ba xam nekku leen di génn ay yenn bagages yoo xam ne boo ko fa taw mi rombee dana ko yàq sinistre yi nekk ci Sénégal yëpp je dirai pas Dakar ngi leen di masaw guddi yi ñu toll Dakar mi ngi dund lu metti bërki dee moo njaay gis ngeen ni dafa am sax ku ci ñàkk bakkanam pour bu diir que ni taw mi métti na méttu boo xamante ni ndeysaan maa ngi gis benn taximaan dama leen yërëm dama leen yërëm ndax tey c'est vrai que ni euh, taw bi mi ngi jugee ci suñu borom waaye lam leen di yàqal kenn du leen yëkkatiwaat koppar jox leen ko benn paa da ngay gis nii ci biir oto oto bi ci biir ndox mi muy génn ndeysaan pour sauver boppam bàyyi fa oto bi te oto boobu moo ko daan jox dépense moo ko daan joxel doomam ay soxnaam ba ci waa këram yépp pour pour ñu am lu mu lu ñu dundee lu metti la wax dëgg yàlla xéwal lañ doon ñaan ndax ndox moom ku kenn bañu ko waaye wax dëgg yàlla metti na trop trop trop trop trop trop guddi ñu toll fii à ndox yi ngi fépp ci Sénégal fépp ku ne sa kër jëlul ndox dafa fekk ni yow nekkoo ndakaar wala nekkoo Sénégal et puis c'est pas seulement au Sénégal ah je vois que ni en Afrique même da ngay gis ni fépp am ndox donc ndox yi ñëw nii euh, ñu ngi ñaan suñu borom Eh, xaw ma nag nan lan ko ko mën a ñaanee ndax suñu borom nag moom dañ koy ñaan ndox ba pare mu may ndox ñun ñu pare naan que ndox mi daa bare ñun <laughs> tam dañoo soof de ñun xamuñu lan lan bëgg daal ndox mi moom kon kon kon kay na ko limité wala bu fekkee ni suñu borom mën na jël taw bi répartir ko ndax bu fekkee ni taw benn fan la ñu koy sottil fii sotti moo xam ni dalay leen ndox mi fii la ñu yem non boobu na ko def benn benn benn benn taw une semaine taw lundi taw mardi taw mercredi mais suñu borom guddi ñu toll samedi lay jàpp taw ko lépp lépp lay taw samedi bi léegi samedi bi fépp ay taa ndox yi day ne fuure ne dañ ko répartiral dañ ko ñaan loolu comme que ñoo doon ñaan yàlla may ñu ndox léegi dañ koy ñaanal yàlla taw mi dee ko répartir c'est-à-dire euh, def euh, partager ko de telle sorte ko ku ci nekk day am fii lundi mu taw fii mardi mercredi nga xam ne ñëpp dañ mën a kontaan mais bu ko tayee benn samedi nii mu dajale lundi ba ba dimanche nii rek la mën a mel kon ñaani nañ ko xoolaat ñun tamit li ñuy ñaan nañ koy xoolaat parce que bu nu ñaanee lu ñu sotti ñu ba pare ñu ne fi di wax yeneen affaire la s'il vous plaît ibil euh, lañ ñu ligne bi ci 88 628 14 13 on est lundi euh, comme tous les lundis xam ngeen ni nouveauté mais tey euh, dafa tombeel benn bés bu spécial doon taajaboon taajaboon nag kenn du ko fàtte ndeysaan jamono ju njëkk ja xaw ma nag ba xam léegi nit ñi ñi ngi koy bëgg ou pas da gis ci biir taajaboon Eh, eh, daaw rek ndeysaan daaw daaw am na benn phénomène bu doy waar eh, jamonoy kunkaande la woon am xale bu jigéen bu solo solo kunkaande Grégoire maa ngi ko dugaloon sama Instagram daaw mais c'était autre chose pour te dire ton ami la kunkaande na dangay gis ni xale yu góor ñi dañuy jéem a sol yëre jigéen xale yu jigéen ñi sol yëre góor waaye ñu ci bari dañoo sip li ni mel ñu ne góor warul sol yëre jigéen rawatina ay jupe rawatina <laughs> non de léegi-léegi nga gi ci xale bu góor bu ñaaw nga xam ni kii bu doon jigéen dina yéex am jëkkër noo ba léegi mais des fois nga gis xale bu jigéen boo xamante ni dana leen ni kii du gaaw am jëkkër tellement que ñaawaayam non jéggi na dayoo ba mu solo yëre jigéen bi léegi leen dem nga jis yéen xale yu góor yi ndeysaan xale jigéen ñax ñoom macha allah. ñoom bu ñu solee yére góor yi da leen di jàpp surtout bu ñu laalee benn caaye nii euh, man je préfère que jigéen ñi sax sol ay caaye et mais góor ñi sol benn affaire boo xamante ni c'est un peu démodé en fait waaye bu ñu sol yére jigéen nga ma samay bu mu xool amoore su ma la xamul doo am jàmm de nii ngay def nii ngay def ba ma ba ma waxaat li nga nekkee ci ci régime liggéeyal ngay nelaw <laughs> maa ngi koy nuyu système ayen Jeyla di ko jox wàcc waayam bu baax a baax a baax eh, génnul ci eh, eh, Jeyla mi ngay tudd Grégoire bàyyil jaamur bàyyil Jeyla mu dund dundam waaw mbokkum yaay dan la moom xaritam dan xaritam original 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum maa ngi lay siyaare ko kan la allo kooku dem na mën na ñëwaat ci 88 628 14 ou 13 ou bien sur le 33 841 23 l'une des plus belles chansons bi nga xamante ni ça fait et ça marqué le monde entier bokk na ci woy bi nga xamante ni suñu baay ñenn ñi mu doon suñu maam euh, muy Ismaël Lo way na ko ci Tadjaboon euh, euh, ñu jël ki nekk ci ligne ba pare doog a ñëw ci moom 88 628 14 ou 13 bonjour salaamaaleykum. maaleykum salaam Xeuza na nga def. waaw mais maa ngi lay nangu nañ ziar bu baax maa lay woowee Conakry. yaa ngi ba di ne Conakry ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Conakry yëpp. waa ñu ngi rafetlu sa émission bi. Ndeysaan Ndeysaan ñu ngi ñi ngi kontaan ñun itam. waa di ko seetaan man nag sama soxna ak sama doom ñu ngi fi. Ndeysaan ah nuyul ma toute la famille. Adama Samb ak maam Khadim ñu ngi kontaan ci yow. macha allah macha allah ça fait plaisir moo tax du ma jug ci di leen nuyu ndax xam naa ni yéen a ngi fa toog mhm. ñu seetaan. ñu ngi kontaan bu baax en tout cas nooy waaj a taaja boon bi tey. waaye ñun de ñu démb lan lan tamxarit fii mais. Ah, fii ñi ngi ah. nag Sénégal. ah yéen tam tamxarit ngeen démb. waa démb lan tamxarit waaw. waa naka naka mu baax madame togg na cere ju cere ju tooy rek. waaye madame kay togg na cere cere ju macha allah. tey lu mu ci def moom ginaar la ko toggee wala yàpp la ko toggee. non ñaari yëpp la boole. ginaar ak yàpp la def. mais ñun problème bi ñu nar am mooy xale yi léegi mënatuñu mënatuñu cere fii au Sénégal. non xale yi léegi mënatuñoo cere sama jamonoy maam ñoom nga xam ci ay yomb ak ñu lañ ci daa to to xale jigéen léegi kaa rek kaa ñoom kaa rek kaa daal lañ gën a mën ko togg ceeb cere yi kay dara neexu ji ah xale yi xale yi xale yi mënatuñu siim cere bu dëgg cere dëggantaan cere bi ma daal lekk sama cere maam mère Diallo te ndar wallahi azim bu la defalee cere ba bàyyi la ko doom day boo ci danqee benn boole koog ñeex mi oh loolu benn beneen affaire la dëgg la mais da wax lu am solo léegi nii xasa ah Grégoire xaaral mais da wax lu am solo léegi dam waaw waaw loolan la mooy da nga ni Sénégal ñoom bu tawee benn yoon rek ñu commencé wax ju bari mais dama la bëgg a xamal ni le Conakry day taw une semaine barki sëñ Tuubaa day taw une semaine lu ñu def ci taw bi lañ koy wax te doo dégg benn télé bu ci débat doo dégg réseaux sociaux yi ñu koy waxtaanee. fii nag moom réew fii nag yi dañuy kaas de. <laughs> waaw mais seen réew bi lan moo leen dal ak yéen li leen suñu borom defal ñun def nañ partout dans les Afrique gis nañ li xew ci réewi Afrique yi ak africains yi ni ñuy dundee. yaa ngi wax dëgg yaa dégg ak coono yéen am. mais yéen sénégalais yi. kat gi na lay ngeen coow coow lu métti ba di wax sant leen yàlla. nag kenn xamul man daal man ruus naa sax sax ni ngay wax nii man maay man ruus naa sax sant leen man def naa def naa Afrique def naa Afrique hmm. boo ñëwee fii boo ay lu mel ni Conakry wala ay Sierra Leone ay Guinée Guinée équatoriale. Tchad am na ñoo xam si amuñu fon fanaan sax ci ay ay baraag la ñuy fanaan ak ay ay ay bitig la ñuy jël di ci fanaan. yéen Sénégal amul benn nit boo xam ni si dana fanaan ci mbedd. a ah, am na ñu fi fanaan ci mbedd nag de doom day waaw mais ñi fanaan ci mbedd yi mbe ci fu baax la ñuy fanaan. ah mais boo ñë boo génnee boo génnee ci réew Afrique ngay gën a xamaat fan lan mooy Sénégal yéen xamal lan moo leen li leen gën li seen problème yi li leen gën a dal mooy ngeen war a yàlla te sant leen yàlla loolu rek moo leen dese. wan kay dama ruus rek maa fi taxawal sénégalais moo tax ma ruus ñun dañoo mën kaas nag dañoo mën kaas de dén moom leen dal kenn xamu ko man damaa yaakaar ni yéen am ko leen tooñuwaat bay ba ngeen góorgóorlu te gën a ñaan yàlla bu tawee ñu wax ñun bu tawut ñu wax waaw ñun bu war a wax waxee dañuy wax bu warul wax waxee dañuy wax ñun daal dañuy wax rek ñun ñun moom waaw ñun moom kenn xamul ñu problème ñun na waar man bu ma ñëwee Sénégal bu ma duggee ci car rapide yi sax damay ruus ay kaas ki xuloo gi sama weccit en ah, parenthèse sama weccit yow. Eh, joxuma la waaw waaw da ngay da ngay da ngay da ngay réew a tas daal. waaw gis koo xam si yow amoo amoo amoo sa salaire li gën a naw sa salaire motu cinquante mil franc nga takk ñaari jabar bëgg koo jiñ président bi di toog di coow wax du bari defaruwaat leen te ngeen nekk ay nit. waaw <laughs> moom dañ mi ngi ñuy conseillé nee na ma defaruwaat leen te ngeen nekk ay nit d'accord. dégg nañ la adduna béppay roy ci yéen adduna béppay roy ci yéen wallaay wax président boobu noonu ñëpp ko ndaw foo dem ci adduna bi boo nekkee sénégalais président bi lañ lay njëkk laaj avant tout góorgóorlu leen te ngeen nekk ay nit <laughs> grand nag wuy ma bàyyi naa nu da ngeen da nekk ay nit ñu ay nit ay nit njaay lañu léeg-léeg nag faw ñu génn ah. wane suñu bopp Ah, ah war ngeen a góorgóorlu de. ñun ah, ñëpp ñii góorgóorlu ñii de. bu ñu wax nekk lan ay nit lañ. <laughs> ma xamal la benn affaire. waaw Conakry gii. Ah. koo fi laaj. foo bëgg a vacances yi Sénégal la lay laaj du la wax Amérique du la wax fenn ci àdduna bi Sénégal dong lañ bëgg a ñëw. ndeysaan dëgg la dëgg la dëgg la. teraanga nag Sénégal la fekk baax yàgg nañ koo wax. nañ dinañ góorgóorlu t'inquiète pas. ok merci beaucoup kontaan naa trop. la ma nga de l' autre côté euh, foofu ca Guinée Conakry nee nañu leen euh, c' est l' émission qui dissipe vos soucis mais également euh, qui vous permet de voyager dans d' univers dans d' autres mondes inimaginables. monsieur Grégoire tey la taaja boon xale yi ci bëri mënuñu togg waaye am na loo ma doon teg ci suuf léegi léegi loolu indiwaatal ma ko ma xool non li nga tegoon ci suuf léegi léegi loolu dafa doy waar indi loolu rek yow ma ànd ak moom dem. ndeysaan bu fekkoon jamono ji ma am jabar dama lay yàqal rek yoruma yoruma jabar yoruma ko ma lay yàqalal 88 18 14 13 ñu jël ki nekk ci ligne bi bonjour salaamaaleykum. moo tax foo ma takk daal fi lañ ma mën kii daal waa maa ngi lay siyaare. Euh, maa ngi dellu siyaar. noo def naka yi tey. naa def ko saa. macha allah alhamdulilah tur bi naka la fan ngay wootee. Mbène laa maa ngi wootee euh, Burkina Faso. ah Mbène Burkina Faso maa ngi lay nuyu di la siyaare naka waa Burkina. jàmm chaque fois yow la ñuy dégg yow la ñuy ndeysaan Guinée Conakry génn Burkina Faso dugg ay waay aw ma seen fay jërë ngeen jëfati yaa ngi nuyu chaque fois vraiment merci beaucoup kontaan naa merci beaucoup Mbène na ngeen waajee tam xarit bi yow def nga ko démb wala tay la waaw démb lañ ko def ah démb ngeen ko def waaw waaw na ngeen def ko démb te deful leen ko tey ah fii fii moom démb la puisque ñoo leen njëkk a tabaski donc euh, ah ñu njëkk def daal yow yaa yaa defar cere ji wala. waaw maa ma xale yi toog te mënaguñu defar cere ndax xam naa ni bëgg nañoo mën nan nga mooñee cere ji. benn ñi oh, xale yi xale yi xale yi kaa rek lañ fi nekkee kaa. topp kaa ay topp kaa man lañ doon topp. <laughs> ñoo ñàkk fayda ah waaw. lii lii kii coupé léegi wax laa doon laa bëgg a dëggal en fait. en fait la. dëgg la dëkk yi taa fépp la Burkina Faso bi day taa ba day yóbbu ay nit et tout mais doo dégg kenn ku nekk ci télé bi di accuser gouvernement wala ci que ce soit. Hmm. chacun assume ses responsabilités en fait. mais chaque fois da ngay seetaan télé bi gouvernement deful nii gouvernement moo def lii rek ngay dégg chaque fois dañuy kaas rek en fait. Sénégal dañoo mën a kaas en fait ils sont ils sont jamais satisfaits en fait. Hmm. donc dañoo war a xam ne am nañ am na ñu tane ñu ci des dëkk yëppay taal du Burkina kese du Guinée kese du Sénégal kese fépp la en mais ñoom rek ngay dégg chaque fois ci journal yi ci télé yi internet bi Facebook bi partout ñuy taas rek. c'est grave. Hmm. dund bi cher beeg yëpp la ñuy taas chaque fois journal daal doo ba mu jeex te kenn du taas dara en fait pourtant les problèmes c'est partout. mais mais mais mais nga nga nga nga jàpp ni loolu lan moo ko waral. franchement dañ dañ dul dañ dul dañ dul jël seen responsabilité dañuy préférer accuser ñu ci des en fait ils préfèrent accuser d'autres mais xam nga aussi jeunes yi fi nekk te liggéey ñu bari na aussi peut-être loolu noonu colère la boo xam ni ñoom xamuñu nuñ koy manifester lu dul bu tawee wala problème am ñu mën ci génn wax si mais loolu fépp la tamit fii tamit looloo fi am voilà problème yi am Sénégal moo am fépp c'est pas Sénégal seulement qui a trop de problèmes sauf que c'est eux seulement qu'on entend mais c'est pas eux seulement dëgg la. voilà donc merci beaucoup ci dédicace yi merci à vous merci merci ça fait plaisir ndeysaan ña nga ca Burkina Faso keneen kaa nga jógee ca Guinée Conakry bari na Cameroun bari na en Afrique bari na dans le monde entier ñuy toog di seetaan euh, émission bile moo tax euh, Grégoire luñ ci mën rek nañ ko def euh, ngir sénégalais yi seetaan mën ci am satisfaction ndaxte tey bu melee nii fii la tàmbalee ci Sénégal boo dem bitim réew ba feneen ak feneen ñu mën di toog di ko enjoy kon gërë nag yii bu xasee dugg damay bëgg nga tiitaru tuuti wanewu sa bopp doog ma wanewaale ma xam nu ma mel ndaxte sama xarit nga régi bi nekk woofu lu dul liggéey waaw jàmbaar nga euh, euh, euh, maa inversé wax ji mais Abel moo doon nelaw nga ñëw di ko yee <laughs> Abel nee mi ngi ñaaw de <laughs> alors mi secret rapidement neexal ma tuuti ñu doog a wëy ndaxte tey la tam xarit dañu war a taajaboon taajaboon ak sénégale yi nga xam ne ñu ngi toog seen kër euh, di seetaan ma leen di wax ni leen tey est-ce que taajaboon bi euh, euh, nit yi dinañ mën a dugg ci ruq yi ruqaan yi daan dugg ndaxte la gars yi wax rek ndox mee ngi fépp ci Sénégal di ñaan yàlla rek mu teggil ñu ko comme ni ko sama frère ak sama sœur boobu waxee léegi léegi doon ay sénégalais yoo xamante ni moom lañ naan am na sénégalais yu nekk d'ici et d'ailleurs ñu nekk feneen nag ñoom itam ñu ngi wane li nga xamante ni moom moo di Euh, seen xalaat ci seen réew ndaxte ay doomu Sénégal lañ yu nekk feneen euh, di daan seen doole kon ñu ngi leen bu baax a baax monsieur Grégoire yaa euh, ba may ñëw nga ne ma ma la ndékki ma wutal la mburu mu baax defal la ci li nga bëgg jox la nga ndékki ba pare nga ne noo doo doo émission tey la laa ni DJ ngi toog di seetaan non da ngay émission wala ñu jéem a xool lu ñuy def Abel waxal a kii fasal nga ma samay bu mu xool. amoore su ma la xamul woon dof laay doon Grégoire bàyyi li ngay def bàyyi Grégoire la ñu nekk yow tamit bàyyi li def bu ma énervé danga ma énervé fii ma tekk micro bi dem beneen beneen problème am beneen problème yeneen kaa jàllaleel sama xarit nga vas-y affaire moo nelaw du yow vas-y Grégoire nag est xam ngeen dafa dëgër bopp Grégoire vas <laughs> waaw baax na ayca Euh, kon ñu wéy àndandoog yéen ba tey merci beaucoup euh, ci euh, père Mbaye Dieye bi ci way woowu nga xam ni moom mooy bomb cere ji waaye tey la taajaboon donc nous allons véritablement vers ki nga xam ni moom moo di sunu baay Ismaïla Lo taajaboon regardez cette chanson quand vous l'écoutez véritablement da ngeen di am ay frissons chair de poule c'est qui prouve véritablement qu'il chante hyper bien mais une chanson qui est reconnue un peu partout dans le monde alors pour votre plaisir. jërëjëf non am na jar am na xorom poor lekku ruku sàkk Grégoire am na jar am na xorom poor lekku ruku sàkk waaw léegi c'est bon man man maa la laajatul dara yow na na metti tey yow tey man ak yow non xoolal c'est la guerre donc rapidement amis chers téléspectateurs regardez cette chanson de de notre papa il se nomme tout simplement Ismaël Lo xoolal Tadja Bon nañ dem xool Une très belle chanson de notre papa il se nomme tout simplement Ismaël Lo euh, père ñi ngi koy nuyuwaat bu baax a baax a maax euh, Grégoire way wi nag dama koy jër may ko père El Ndiaye waaw sama doomu nday sama père sama xarit sa xarit yow tamit waaw waaw suñu xarit Abel Grégoire euh, am na lu ma tegal de loo xamante ni foo ma wax la ko ci suuf mais Gré balaa loolu ma koy wax dama bëgg nga tegal ma yow li ma bëgg ba pare sinon rek ma classé cas <laughs> Aïcha Grégoire vas-y tu me mets la chanson euh. c'est boo xam ne ay tubaab ñoo ko def ce qui prouve véritablement que c'est une chanson vraiment écoutée un peu partout dans le monde bu ngeen ay tubaab def ko ngeen mooy wane ni wax dëgg yàlla way wi du wayu Sénégal donc waaye wayu àddina la kon nag on en profite euh, di leen wax euh, tey ñu yàlla ñu yàlla yóbbu ci fête bi ci jàmm ngeen def nag ci cere yi parce que cere mooy loo xam ni bu dee mag nga teel ko lekk waaye bu dee gone nga lang ciy lekk na nga ko limité waaw ndax cere dafa am lu mu àndal ñeex moomu ku ci jël sol ci lu bari genre jule gi ma penda jël ci lu yem man dama bëgg cere ak meew mais bu ngeen ko mënee booleeg ñeex mi man am na ñu ko bëggul mais man j'aime bien am na ñoo xam ne boo leen waxee loolu ne non comment est-ce que vous pouvez meew mi def ci kii ñun tàmm nañ ko ñun ndar ndar mais jàll bu ñu ko daan defal noonu koy lekkee mais dama leen jël leen seen temps ci cere ji moytu leen cere leen mag bu dee mag nga itam maaja teel a lekk cere gi vingt heures wol maam faali mer nox su ngeen teg ko vingt ba dix neuf heures ngeen lekk ko pour seen tension ak seen wér gu yaram yaa ngi dégg tey sama xarit bi dëgg la ndeysaan ah mais maa ngi kontaan de mon ami mon ami lu <laughs> waral lii jërëjëf da nga bëri fem de bu dee xale la kon mag ñi laa doon wax ñu teel a lekk sama yaay yi toog di seetaan yëpp dañ leen ko ñaan rek bàyyi leen di lekk cere ji à partir de minuit baaxul ci yéen teel leen ko lekk dix 19h 18h jàpp 20h bu fekkee ni xale yi la itam 22h ba 23h mën ngeen ko lekk bu ngeen ko lekkee bu leen ko lekk rek tëdd. lekk cere tëdd baaxul doxantu leen tuuti def benn mouvement doog a tëdd parce que cere dafa diis te bu leen fattee rek mooy loolu dimbali leen ñu rek ci li ñu leen wax nii te ngeen lekk ci lu yem lekk leen ci lu yem xanaa xamoo cere lu ci dàq li dàq ci cere mooy nga yeewu tàngal ko yeewul nga ta ba muy jooy di ko furit faraj ko te xam ne yaa leen man ndeysaan dëgg la Comme le poisson qui aime de la mer, il la couteau à voir le viande. tey xarit bi sa yaram na kontaan naa alors mi ngoog loolu moo doon li nga xam ni euh, mënu ci mënu ci bañ bañoon wax. ndaxte tey taajaboon la te ku ne taajaboon xam ni fête nationale internationale la fépp ci àddina am na ñu ko fête démb am na ñu koy fête tey euh, kon nag on en profite di leen wax li ngeen war a def pour digérer li nga xam ni moom moo di cere ji euh, ñun célibataires yi nga xam ne amaguñu jabar bu ngeen nu mënee yàkkal bu leen hésité bu leen hésité yàkkal leen nu am nañuy frigo peut yu yuñ ko denc yoo xam ne wax dëgg yàlla dañ ko fa denc homme marié waxuma ci kenn waxumaa benn homme marié te damaa ñaanu sax man ay homme marié jigéen yu baax yi wax yéen ñi ma a may cere fii message leen ma ko fii cere <laughs> te maa bañ wax loolu balaa cere di bare du ma xam nu ma koy lekkee ba baa leen ma choisir sama cere bopp rek après naa wax ñeen ñu ñu may ma cere wala ngeen indi rek après ma tas ko may ci ñoom Grégoire sama yenn gars yi célibataires yi ñoom ñu mën cee dund waaw indi leen rek alors rapidement monsieur Gré ñu dugg nag ci playlist bi merci beaucoup euh, c'était vraiment pour vous rappeler li nga xam ni moo jot a xew euh, ci Tadja Bone donc ñu dem seet euh, ki nga xam ni moom moo di Mbaye Si Ndiaye baa xool yaa ngi féex ndax tey taaja boon la gi rek xool yi dafa war a sedd daa war a féex pour nit yi mën a ñëw euh, kontaan donc seetal ma mbay si Ndiaye mbaa xool yaa ngi féex ñu féexal xool yi doog a dugg nag ci playlist bi mbay si Ndiaye mbaa xool yaa ngi feex Monsieur Grégoire si c'est bon on y va let's do the show. Eh, bu leen fàttali bi topp leen ko topp leen ko bu leen ko bàyyi muy wedde muy weddi xaru. merci beaucoup Mbaye Sy Ndiaye maa ngi koy nuyu maa ngi euh, de l'autre côté foofu ca Maroc àndandoo ak waa Ramdan ak waa Libarago Seck kon ni euh, ngi lay nuyu bu baax a baax Mbaye Sy l'international mais Mbaye si gis naa la yow tamit nga war a laaj ndox lii la la yow sama verre yi ngay nduroo léegi lii sama verre yi yi yow yow est-ce que gis nga samay verre yow est-ce que yow gis nga samay verre yow yow lu tax nga iñaan caméra lii caméra <laughs> non yow booy da nga soxor yow yi doo ko takk mukk ci àddina verre yi amul lu mu naay seewul xool leen verre yi rebord bi yéen a koy gis kii dafa soxor il est méchant ce gars il est mais du ma ko parce que waxi noonu moom da nga koy bàyyi rek muy wax merci à Mbaye Sy donc euh, dañuy dem euh, seeti ki nga xamante euh, aussi cette chanson a marqué vraiment les Sénégalais parce que ça fait un million et quelques vues en un mois donc c'est à féliciter Mbaye Moussa Diamacoumba Sène Mbaye Goli Fatim Madiodio Borom Gaay s'il te plaît Petafa 88 628 14 13 nañ jël ki ne ou bien sur le 33 841 23 34 doog a wéyal waxtaan wi tam bëgg nañ koo gis tey euh, ci nouveauté yi jot a ruus ci toile bi ak artistes yi nga xam ni euh, euh, ñi ngi def buzz un peu partout au Sénégal j'en profite encore une fois de plus gré di féliciter ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye numéro 2 le grand retour de BG2 kooku nga xamante ni moom moo di le lion de Guédiawaye ñi ngi koy féliciter di nuyu waa Guédiawaye banlieue bi yëpp di leen féliciter képp koo xam ni yaa ngi doon supporter Balla yàlla na ñi ngi lay naan félicitation waaye également di encourager bu baax a baax l'international kooku nga xam ni c'est un exemple également pour le lutteur moom Gris Bordeaux ci yar gi ci dal gi waaye également ci mën communication parce que lu muy communiquer communiquer doo ko dégg mu lu ñaaw kon nag waa Fass yéen waa Médina waa Colobane Gueule Tapée ak ñëpp ñu ngi leen di wax nii ndam li Sénégal la yem te donte ñu nekk ca waaye am nañu faraloon Gris doo ñu nekk biir fas ak Médina am nañu faraloon Balla Gaye ce qui pour véritablement que lii mooy làmb te làmb fii la lépp rek ci ndam li Sénégal la yem kon gré loolu dafa mat a bàyyi xel te ñoom li ma gën a neex seen combat mooy ñoom les les anciens je dirais pas les anciens mais les aînés ñi leen jiitu ci làmb ji ñoom Balla Modou Lo ba ci ay yenn gars ñoom seen combat yi doo gis après ñu naan la am na mort am na lii am na laa ce qui prouve que ni ñoom dañuy sensibiliser seen ay supporters de telle sorte que yenn yu ni mel noonu du ci am moo tax ci yeneen mbër yi dañuy ñaaxaat bu baax supporters yi xeex geek yooyu ñu bàyyi ko parce que c'est c'est très important aussi ñu euh, bàyyi xel ci li ni mel donc euh, loolu mooy làmb te làmb cosaan la làmb lu yàgg la te lu yàgg lu ne dëgg la 93 moo ma tax a yàggal fii de kon nañ dem seeti ki nga xamante ni moom moo di Dior Mbaye euh, ci 88 628 euh, dégg man ko ci 88 ba Mbaye ca kilibam euh, bu neex ba ànd ceeg ki nga xam ne moom moo di am bongo si c'est bon on regarde l'international Dior Mbaye c'est parti. Une très belle chanson de son vrai nom Dior Mbaye elle chante hyper bien euh, ce qui me plaît euh, euh, sur cette chanson mooy ba xam euh, xaw ma ba xam yéen a ngi gis euh, li nga xam ni euh, moom moo di way wi ni mu ko wayee c'est-à-dire yéen a ngi fàttaliku wayu ndongoloo bi taamu naa jale bi dinaa la way ndax sa ji woo gay njoora yéen ngi xam ah pour pour pour ñi nga xam ni ay méloman lañu xam nañ li may wax instru même instrument bi la jëlaat ci way wi donc ñu ngi koy gërëm moom Dior bu baax 88 628 14 13 mbokk mi ci ligne bi bonjour salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay siyaare kii kan la yow. man maa ci gagné woon xar mi. yow yaay. maa gagné woon xar bi. yaa gagné woon xar bi. waa Saint-Louis bi. ah yaa gore nag yaa gagné xar ba pare kon bàyyi woo woote nga woote waat. never danga may bëggal. ndeysaan nanga dafa xar mi yow yow sama poojo xar joxoo ma ko de. moo pooj baa ngi fi de. ah mais pooj boobu ba léegi pooj bi ba tam xarit xam nga ni tey di ko togg. waaw tey moom naa ko togg cere ji toj. ndeysaan naka sa tabaski neexoon na. ah sant yàlla macha allah neex na trop. yaa ngi toog di seetaan ba tey sa émission. waaw maa moom xam naa bu bu xam naa yàlla tere bu ñëpp doon bàyyi émission bi yow doo bàyyi nag gañ nga ci aw xar mu baax. never du ma bàyyi ak dëggal bi sax. léeg-léeg du amee non gaay gaay ñoom ñu gañee ñu ñàkk gañee ñoom dañoo bëgg yëf yi kon ñu ngi leen di kontaane yéen ñëpp. ah nag baa tawul. waa taw na de mais taxu ko yéeme noonu. ah waaw xam nga nag ñun dañoo am géej ak dex. waaw gis nga. <laughs> waa da xoolal xoolal kaa ma Dakar de fii lay taw ñuy ñuy kaas rek ñoom dañuy kaas rek waa Dakar. waa kaas bi nag nan ko bàyyi. Ah, parce que waa Dakar la waa Dakar la ñun sax lañ dëkk yow man dama fi ne nii rek de pour le moment. <laughs> waaw waaw dama leen di wax tuuti Gambie. waaw. man na tegle quatre jours di taw. fan Gambie. waaw man na tegle quatre jours di taw. waaw. taw yu métti. Hmm? te du tax dëkk bi ndox bare fa du tax mu in oh là là ndeysaan kon ñi ngi leen di nuyu waa Gambie xam naa wax ji mu bëggoon wax rek mooy euh, Gambie dinañ tegle 4 jours di taw te du tax euh, nit ñi duñu génn di kaas euh, waaye dañ lay xamal ni la ñun kaas gi fi lañ ko fekk te fi lañ koy ba <laughs> booy booy ay kaaseur lañ de way loo wax ñu kaas te boo kaasu sax ñu kaas kon nag ma ngoog merci beaucoup euh, euh, Aïcha mënu maa ñëw ba ba ba ba ba ba fi nga wax noonu Maris boo may indil sama ceeb rek nga indil ma xaw ma sama ceeb maa ngi naan sax ceeb ndax bëgg ceeb merci beaucoup à Dior Mbaye une très belle chanson euh, bi nga xamante ni ci wàllu sañse la kon nag xam leen ni way woowu man dong la ko woyal kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax dañuy dem seeti keneen keneen ki muy doon kooku moom mooy l'homme de la banlieue il se nomme tout simplement Sidi Diop pour votre plaisir et euh, cette chanson également je l'adore euh, parce que mi ngi ci ànd ki nga xam ni moom moo di Adiouza pour le plaisir des téléspectateurs regardez ce titre de Sidi Diop ak Adiouza c'est parti. bakkan lay lay laaj bakkan lay laaj bakkan une très belle chanson de ce garçon mais Grégoire dafa am loo wax ci way wi nga ne wax woy wi lan lay laaj parce que dama la dégg bi ma lancé way bi ba pare aju Adiouza way ko mu doon woy wu neex mook Sidi Diop da nga ni woy wi dafa am lu muy laaj Gré way wi lan lay laaj ah <laughs> ni way bi nga teg léegi waaw wax ma waaye wax ma wax ma wooy bi nga teg léegi lan lay laaj exactement dama bëgg xam rek lu muy laaj bakken lay laaj bakken lay laaj yow gën na ñàkk fayda ci Sénégal yow wooy bi ñëpp ñëpp xam na ni bakkan lay laaj mais yow lan nga ciy wax ni bakkan lay laaj ah yow kan ma la wax <laughs> ayca maa ngi leen di kontaane baax a baax a baax kenn du man maa gën a man mën man du tax man moom ay man

da koy avance ba ci kanam ndax xam naa ni musique bi euh, euh, fii fi mu ne nii ci kii bi ngay ne ci euh, leget bi xaw ma nu ñu koy waxee noonu bongo bi bongo maani ni nag taay xew nañ gërëm taay gëm nga maa xew nañ de barki ma gis naa leen mercredi am na benn bongo maan bu ñu bu ñu invité waaw mercredi incha allah dinañ fi am Papichou mais Papichou dimbali ñu rek nga doon 4 ba 5 personnes Papichou bul 6 bul 7 bul 8 te doo seex ma ne ko bu mu 6. ñaaw na boo noppi te day gën a ñaaw. ma ne ko Papichou bul ma indi six personnes bul ma indi sept bul ma indi huit quatre à cinq yamaleel ma ko foofu tënkal ma ko foofu nga ñëw ñu gérer ambiance ñaar xam na ñett xamuñu foofa daal di toj Grégoire ñu àndandoo ki nga xamante ni moom moo di l'international Djiba ce garçon il est exceptionnel regardez ce titre on regarde c'est parti let's do the show Ce garçon, il se nomme Djibala Boy. Il est exceptionnel de l'autre côté à Thiès Kaay benn dëkk ñaari gaar nuyu naa waa Thiès gépp gën a gaar barki dem ba mu fa jugee euh, euh, la euh, semaine bii passée ba Abel Boy seetlu ci la yëpp xew ndaxte wax dëgg yàlla ab dëkk boo demee da ngay liggéey. mais Grégoire dem Thiès kenn xamul ci lan la nekkoon noonu ba mu ñëwee gis nga lim ñu def euh, lim ñu teg man ak yow parce que wax nga ma ko ma xam ko xam nga ko kon nag géré moytul sa bopp <laughs> te vidéo bi nga jël baaxul defaraatal beneen bi nga jël nii baaxul de bi bi moom baaxul moom alors euh, ñu dem ala euh, <laughs> ah, ah. <laughs> doo am jàmm doo am jàmm doo am jom nee na ma non waa d'accord euh, mais mais lii ñëw lii ñëw nii mooy suñu yëf yi ñëw lii ñëw samedi bi loolu dina garaaw lool Grégoire loolu la ma ca waaj yëpp hop hop laisse bii xam nga dañuy kii rek dañuy kaf ñu dem seeti le leader de la génération consciente lui aussi il est exceptionnel avec ce titre way euh, wii nag euh, Sénégal nee naa leen guddi ñu toll bokk na ci chanson yi ma gën a bëgg le pourquoi parce que euh, euh, euh, moom day fësal lëmbal saa su ne ko la ñu ne ko Pape Diouf Diouf a njoxo bàyyi séeréer bi yow rek yaa tax xaw ma lu may def séeréer yi maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la siyaare waale bu baax a baax di la jox sa wàcc wàccuwaay séeréer bi di ko nuyu dégg naa nag Adji Sarr moom yow yaay waykatam Adji Sarr menn Pape Diouf mooy waykatam ndax moom nee na séeréer dëgg la kon Adji Sarr may naa la way bi nga xam ne Pape Diouf moo ko way ñu dem seetaan ko rapidement si c'est bon let's go C'est le leader de la génération consciente une réponse sous le nom de Papa Diouf merci beaucoup une très belle chanson Pape Diouf leader de la génération consciente ñi ngi kontaan ci way wile nga xam ni wayal nga nu ko waaye itam wayal ko képp koo xam ni ambianceur nga bëgg lëmbal bëgg euh, euh, safullah a ah, bëgg jigéen sax ndax góor day bëgg jigéen loolu laa doon wax quoi ma ma kale ko mais góor dafa war a bëgg jigéen kon nag pap way wi neex na bu baax a baax ñiy kontaan góor bu bëggee jigéen euh, day euh, euh, tax mu am jom lool ca la muy def donc entreprise Guèye Ndiaye et filles sans colère encore rek kon xaar maa ngi ñëwaat léegi 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum allo. Ah, allo di Cheikh Issa. waaw mais très cher ami de valeur et de fidélité naka mu. mais maa ngi delloo siyaar gaynde tey. maa ngi sant Baye yaa ngi am tawféex bu baax a baax. ah là là il est parti merci pour l'appel quand même mën nga ñëwaat ci 88 19 28 14 13 mu nuyu entreprise Guèye euh, Ndiaye et frères en Corée du Sud nee naa leen vente location voiture euh, sur commande moom moom moo di Idi wax dëgg yàlla maa ngi cay liggéey liggéey bu mu caay maa ngi koy nuyu euh, chéri Guèye Ndioro kooka la ñu ne ko Oulimata maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay Ami Khayre ah Ami Khayre wax naa la yow sa ceeb li tax mu wuuteeg ceeb yu bari mooy dafa ànd ak kaf xanaa xamoo nit booy togg ànd ak xol bu rafet. ànd ak xol boo xam ni fu ñu la gis da ngay ree loo togg mu neex togg kuy togg warul di fas kanamam xool leen ceeb yi niy togg di fas kanam yëpp du neex xorom si day ëpp mbaa ceeb ba lewet mbaa buñ ko yekkee ñu ne kii lan lañ defal dànq yi mu defal xale yi bu ngeen di togg dee leen ree dee leen ree moo tax ñuy togg ak onze treize ñëpp bu ñu yekkee añ bi nit ñi kontaan Ah, parce que da di kontaan da ngeen di ree da ngeen di ambiance enjoy foofa daal di toj ami nuyu naa la ca Rivoli maa ngi leen di kontaane bu baax a baax waa Rivoli yéen ci mën de 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum. maaleykum salaam Kheucha ça va. waaw maa ngi lay siyaare système ay naka mu. Gambia laay wootee. ay from Gambia what's up naka yaa ngi cool. maa ngi dee fine yaa ngi dee fine de ah. about Gambia naka mu ba tawul. mu ngi faan taw na moom xale bu jigéen bi woote sànq moo tax may woote nii sax Gambie li dal Sénégal moo ñu dal de. ah. mais li dal senegal moo ñu dal de li leen dal moo ñu dal dañoo mënd mënd. ah li ñu dal mi ngi leen dal. mu ngi dal bu baax a baax. yéen lu tax kaasu leen kon. non ñoo ngi kaas sax. ah yéen a ngi kaas. ñoo ngi kaas de ñoo ngi kaas kon ka kon kon kaas gi fépp la. wa kaas gi fépp la mais xam nga ñu dañu wane suñu bor. ah. xam nga ñu dañu wane suñu bor. waaw yéen du ngeen wane wu waaw yéen da ngeen di kaas rek ci pet noppiwaat <laughs> ñun moom dañ koy wane <laughs> ñun moom bu ñuy kaas ñëppay génn moom ñun moom ñëppay génn ñun xam nga Sénégal daa neex and what do you think about my program or oh, you don't speak English at thing yeah I can speak ah you speak English you were Senegalese people or Gambian people Senegambian Senegambian yeah you live in Senegal or in Gambia I live in Senegal you live in Senegal Why you are there? Why you are in Gambia? Oh, thank you for calling. I'm so happy, so glad for you. Um, uh, ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax ci moom. nee na waaw Abel foofu toj na <laughs> yàlla nga gudd fan sama xarit bi ay ayca Jules Badiane maa ngi lay nuyu sama xarit bi l'homme de Pikine di jox sa wàccuwaay bu baax a baax moom ma ngay waajal notre euh, euh, noble cause ci li nga xam ne moom moo di euh, Pikine 10 minutes kon les t-shirts sont disponibles avec Jules Badiane Jules mbokk mi yaay Sidi maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax le shop tey sama waa ji yaa doy waa de Euh, entrée chez vous yi mën nañ la yónnee ba tey euh, ci 77 823 13 89 77 823 13 89 bu ko defee nag ñu dem euh, seeti ki nga xamante ni xamala la eh mënul am eh, gën a gaaree waaye eh, defal sa kool bi bul ñu fontoo laa la wax bul ñu fontoo de waaye ñu ngi lay yónnee vidéo tegal ñu sunu 11 13 waaw 88 98 14 13 salaamaaleykum. Ah. xam nga leen gën a gaaree maaleykum salaam waaw naka. ça va. maa ngi lay siyaare très cher naka yi tey ñu ngi lay <laughs> ñu ngi lay siyaar bu baax s'il te plaît waaye indil na suñu ay vidéo bu fekkee sa téléphone baaxul da ngay wut téléphone bu ñu sonal fii kenn may lef téléphone merci beaucoup euh, ñu dem seeti ki nga xamante ni nag moom moo di euh, Viviane ak Bastoum une très belle chanson également euh, pour votre plaisir et juste après Grégoire indil na suñu ay on serait chez vous s'il te plaît balaa ñuy dégamé wala balaa ma lay wax loo xamante ni après di nga ko réccu dégg nga <laughs> dem seetaani ki nga xam ne moom moo di Bas ak Viviane pour votre del maye ay gërëgoor del maye yow gërëgoor gi yàlla de yow lii fii fii fii clip bi am na benn affaire bu ci ne produit boobu doo ko wan mun la gërëgoor mii lu tax mu iñaan laa ma jaaxal doo ko wane bi <laughs> yow ah yow barki yàlla yow non man yow man sa jabar laa yërëm gërëgoor xaw ma ku nar a moom <laughs> mais xoolal mooy xoolal dawal la même bu dee loolu la même la gérel yow an sa fit di gir ko déba affaire da ngay demee fit ah da ngay fit waaw léegi-léegi maa ngi doon jéem a message Touré parce que xam naa Touré ture xam naa dafa jaawale ni dafa jàpp ne suba la suba tam xarit mais tay la loolu laa bëggoon wax quoi tonton Cheikh man Touré xam naa dafa jàpp ne suba la tam xarit mais xamu ni tay la <laughs> dina xam naa dafa jàpp ni suba la tam xarit mais xamul ni tay la tam xarit tay la tay la tam xarit Touré man ni moori tay la

kenn mënul wax lépp ay ca jërëjëf merci beaucoup à Viviane Chidit et merci beaucoup à l'international Kokalla euh, ñu nekk ki nga xamante ni moom moo di Bastiung moo gaa sûr il est euh, de retour na Italie toj na tournée boobu nga xam ni defoon na ko ca bitim réew xale baa ngoogu c'est l'international c'est l'homme du moment c'est l'artiste du moment mbokkum yaay si Bérouzé nuyu naa leen bu baax a baax bés ak subatel gépp ñoom Matar ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax le grand le maestro l'international Matar subatel grand bu baax maa ngi koy nuyu moom tam bu baax 14 au ki nekk ci ligne bi bonjour je suis de Malien, je suis, je suis à, comme on appelle au Togo. Donc je suis l'émission quoi, je suis très content pour l'émission. Ah d'accord, vous suivez l'émission et vous nous appelez d'où? Vous appelez de Togo? Togo. Ah mais quel plaisir. Oui, oui. je suis, de Malien, c'est c'est Ba Boubou Ba. Euh, Vous, vous voulez quoi eh, je, voulais que vous mettez une chanson de Youssef Ndour. Je vous entends mal, monsieur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, euh, euh je ne sais pas comment, mais euh, je vous entends je mal. une, belle chanson de Youssef Ndour. Ah, vous voulez une chanson de Youssef Ndour D'accord, On va vous mettre euh, cette chanson, Inch'Allah. Quelle chanson exactement de Youssef Ndour Ok, moi, toutes ces chansons, mais ça me, ça me de bons biens. Donc, euh, D'accord, va s'en engager. Inch'Allah, je, je, suis allumé, je suis allumé ça. Inch'Allah, Grégoire va de mettre chanson, Inch'Allah, tout de suite. Ok, si la chaîne, je salue, je salue un de mes frères, euh, comment il s'appelle Il a salé en Côte d'Ivoire, il s'appelle Seydouba. Qui est qui bat Seydou Seydou Seydou Ba il a Thiès-Salé Abidjan. Ah Seydou Ba. Seydou Ba Seydou Ba qui est de Saly il vient de Dakar aussi. Waaw. Seydou ah, Seydou Ba Seydou Ba c'est mon grand-père il est là-bas. Ah lui c'est un chanteur. Ah lui il ne chante ok je dis Saly comme il vient de Dakar c'était un ah, ami à mon grand-père. Le... OK vous lui passez juste le coucou comme ça quoi d'accord on comprend. Ah Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir et merci d'avoir appelé. Grégoire va prendre ah, l'engagement de mettre cette chanson tout à l'heure, Inch'Allah, tout à l'heure Grégoire. OK, merci, Il merci, merci, merci. D'accord. Okay, OK. Merci monsieur. Grégoire prend l'engagement et met nous cette chanson Inch'Allah. Donc moom mi nga xam ne ñaan na ko kon may ko ko Grégoire vas-y. gere préparer ko ko léegi-léegi nga mën ko koo may euh, ci suuf moom moom ma nga ca Togo di nuyu waa Togo yëpp nee euh, c'est l'émission que regarde l'Afrique euh, tout entier ci a a baax a El Maestro yaag Satou di ngeen ni fu ngeen mosoon dem ci plateau yéen a ngi doog a yegsi maa wax salaamaaleykum waaleykum très cher bonjour mais très lay siyaare doom yaay noo def maa lu wér a wér naka yi tey nag fooy wootee nii. maa lay woowee ba Dakar. yaa ngi Ndakaaru fan ci Ndakaaru. Euh, diggante Almadi ak Ngor. yii doom day fi nga dëkkee nii taawoon na bërki démb de. <laughs> waaw waaw waaw waaw. doom day foofu bëri woon na ndox nag. bëri ndox. mais xamu lu ma rey. man est-ce que lab sax. xam nga lu ma rey xale yaa bu bu bu taawee nii xam nga lu ñuy def dañuy jël ni pourtant almadi moo taa nii de. fii teere yi gën a seere <laughs> loolu ma dama rey après la pluie c'est le beau temps mais fii après la pluie c'est le paccax paccax non mais ah non kooku waxoon loolu moom après il s'est rectifié parce que dégg naa bi mu demee ni après la pluie c'est le beau temps moom biir néegam lalam nekkatu fa woon bi mu ñëwee ndox rek la fa fekk maanaam lal bi ndox bi yóbbu na ko. <laughs> ah waaw gisoo loolu yow. non Sénégal moom après la pluie moom c'est pas le beau temps. ah pour dire vrai après la ah pluie moom c'est le pàccax pàccax c'est vraiment le ngas xam nga ngacci c'est le ngacci quoi. waaw ah waaw gisoo loolu yow. yaa mais sinon yow yaa ngi ah? koy yëg waaw waaw mi ngi naay si sa côté ñu ngi kontaan ñun tam kontaan nañ bu baax. merci beaucoup mon très cher. yaay ca ñaysaan ma nga ca euh, diwaanu Ngor ak Almadi fan yi passé gis nañ ñu ndox mi sono leen na leen loolu wut leen matuwaay yi waaye tamit ñiy jël tuyau yi nañu waxante dëgg tali yi gis nañu ñu génn ci ay ay euh, euh, saaku suuf yu ñu def ci biir loolu lu ñaaw la xawma ma kan moo xalaat xalaat bi ni mel. mais mi ngi def lu ñaaw c'est moche de voir saa yow naka la ñu nit ñi nekkee ci mënd nit ñi sonn nit dem wut ay suufam ba mu feet def ko ay saak takk ko non ibi benn tuyau boo xam ne fa la ndox mi war a jaar nga ne fa sabañ bàyyi ko fa léegi bu ñëwee ndox mi fatt yow lor la lor nga sa bopp lor nga sa morom lor nga say mbokk lor nga say xarit mais ñaaw na de gars yi nañuy xalaataat war gars yi yooyu moom moom doxul moom xaw ma kan moo def loolu mais mi ngi def lu ñaaw c'est vraiment moche oh 88 628 14 13 des fois dañ lay énervé quoi ku ma gisati mu def loolu dinaa dal sa kaw dóor la dóor yu met waaw kay 88 628 14 13 salaamaaleykum allo. allo. waaw kooku kan la. man la. yow la kan. man la Wuri Ba. Wuri Ba noo def. maa ngi fi. yaa ngi cool fooy wootee Wuri Ba. maa ngi wootee Thiès. Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar. ah <laughs> waay ana waa Thiès. ñoo ngi fi. yéen ngi cool. waaw. yaa ngi toog di enjoy comme tout le monde. <laughs> dëgg la mais kontaan naa naka yi tey nag. moo ngi fi. naka Thiès ba taawul. taawul de. taawul taawul. déedéet. moo Thiès nag xaw ma la la mais seen arrondissement yi dafa mel ni dafa baax yéen seen ndox day dem rek yéen waa Thiès waxu leen dara de <laughs> yéen waa Thiès moom waxu leen dara. <laughs> mais kontaan naa wuri dégg nga waa xam naa ni yónnee ngeen seen vidéo on serait chez vous mais Grégoire dafa euh, dimanche yi dafa am ci lu muy ne euh, donc bu ñëwee dafay day àndaale ak ay daajam yu doy waar yoo xam ne du bëgg a teg dara waaw waaw comprendre leen ko ndax moom léeg-léeg day aju ca kaw day ne ca kaw ge boos <laughs> kontaan naa dégg nga wuri waaw Bapula kontaan naa sama tukulóor bi xalpulaar bi loolu nu doyul ñun ñi nga xam ne ñooy buuru séeréer si euh, kenn du ñun ay ca ñi ngi koy kontaane bu baax a baax a baax euh, euh, Satou yaag El Maestro mën ngeen ma wër nomb nii taxaw Abel mën a ñëw am lum leen préparer davantage et juste après on aura temps et l'occasion d'en parler sur ce titre mais nee naa leen fu ngeen parce que c'est bi nga xam ni euh, euh, euh, qui regroupe toute une famille mais également rémission bi nga xam ni moom la sénégalais yëpp bëgg et monde entier kon ñu jël ki ne ci ligne ba pare juste après ñu dem ci xool bonjour salaamaaleykum allo ah, allo allo ayca kooku dem na kon nag dañuy terminer ak ki nga xamante ni moom moo di la Lion Titi une très belle chanson dikkati nañu bu dikkee ba noppi nag ñu dalal ki nga xamante ni moom moo di Satou Niang en compagnie de l'international El Maestro El Maestro nag li ma neex ci moom Grégoire mooy moom dafa bëgg mot moom mot ak tendance la leen tey xoolal la ko laal <laughs> doxalal bis ay ja ayca bel mën nga jël sa temps démarrer foofu ànd tanda ma leen di euh, présenté mangoog nee naa la moo mën a way li ma ci neex tonton Cheikh nee na ma xoolal la muy def ci suuf maanaam euh, euh, ay baatu titi dafa doy waar yow yow yow yow yow Grégoire dafa mën a way de kii li ngay def bàyyi a ngay def fay saa ma xawoon na kaa waroon a Grégoire de lii titi wax rek xam nga mbëggeel dafa doy waar mbëggeel Eh, kenn mënu la bàyyi li ngay def ah ah ah ah ah ah Grégoire <laughs> Grégoire eh. mais Grégoire yow est-ce que yow ça va lan la may ay wiiri wiiri man wiiri wiiri ma jaaru ma naari mais kii est-ce que la yéen kii dinaa ko bàyyi ah man je vais quitter cette chaîne là foo dem foo dem foo ma dem xam naa euh, Grégoire euh, euh, foo ma xool yaay ma dem xool per El Hadj laaj sama lettre démission bàyyi bàyyi la ak bi ndax te wax dëgg yàlla sa sangoo sutura kenn comme que Sidi Diop laa teg léegi léegi nga lan moo ci wax Omaro di dugg nii ngay def ah yàlla la la moo tax nga nga naan bakkan lay laaj omoro lii nga koy def nii neexu ko Omaro mooy def émission 16h bi fii grand bége ah nga nga ngay teg Sidi Diop di di di ci def di ci def Omaro yow war nga def lool da ngay jaay siitaat ma ne yow la <laughs> <laughs> ku ñàkk fayda la mais na fa fekk yéen noppi leen rek man ak moom la yéen ni ngi nii yónnee ko seen vidéo ostré chez vous mu ne du ko teg pourquoi mu ne ma tey la lundi aw ma temps c'est ce qu'il m'a dit il m'a répondu carrément que tey la lundi aw ma temps y a une chanson boo xamante ni ça fait le buzz sur les réseaux et un peu partout au Sénégal à Dakar les gens l'ont adoré Moi, pour découvrir cette chanson, il m'a fallu euh, euh, euh, euh, euh plus de deux mois même, ou bien quatre semaines, trois, pour voir le gars qui a chanté cette chanson. Alors que le gars qui a même chanté cette, chanté cette chanson, c'est un ami à moi. Il se nomme tout simplement El Maestro. Mais la voix également de cette demoiselle qui a vraiment chaviré tout au cœur des Sénégalais était vraiment géniale. Elle se nomme tout simplement Satounia. Les amis, regardez ce clip. En même temps, il va venir restez avec moi vous allez découvrir cette chanson ndaxte mu Moulay Thiegine lu yàgg la lu dëggu la waaye bañ ko waayaatee ñëpp la neex lépp ci li nga xamante ni moom moo di spécial Taja Bon bi may naa leen loolu monsieur Grégoire c'est parti. mën nga ñëw ni allez-y euh, mën na ñëw nii en attendant Abel euh, am lu mu gérer Grégoire je te rappelle que mën ngeen taxawee ne alors merci beaucoup euh, As s'il te plaît ñu wéy àndandoo ko ñi nga xamante ni ñu ngi toog di seetaan boobu ak léegi vite pour ñu mën koo gérer rapidement. donc as mangoogu ngoogu monsieur Gré nee naa la way wii way la woo xam ni nit yi dootuñu ko fàtte ci àddina le pourquoi euh, parce que ci Tcheguine fait partie de titres yi nga xam ni euh, Sénégal fii euh, ça a marqué la jeunesse sénégalaise et que boo ko déggaatee sa xol day neex loolu El Maestro mën nga dem ne ci kanamam waaw vas vas-y là-bas c'est bon voilà justement fini rek c'est bon ok léegi ñu nuyu leen ñoom ñi nga xamante ni moom moo di El Maestro ak ki nga xam ni moom moo di Satou euh, c'est vrai que ni Sénégalais yi euh, euh, yàggoon nañu découvrir les visages de ces deux artistes yi nga xam ni ils ont marqué véritablement le retour de Moulay Thiegin doon fecc boo xamante ni ñun dañ judd fekk ka fi ñun ndaw ñi mu doon loo xam ni ñoom dañ ko dékkilaat pour wanal wan Sénégalais yi li nga xam ni mooy cosaan waaye ci pecc pecc pecc moo xam ni fecc waaye ñi ko doon fecc ñëpp dégg naa jamono yi muy sama maam ñoom seen problème mu jeune am parce que jamono jooju ni ngay def sa jeune yu rul jajjagi nii nii lii Grégoire euh, euh, lii boo ko daan def ura jëgin ura ura jëgin mouvement bi bi di def moo tax sama maam ndeysaan maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ma nga ca alaxira euh, problème mu jeune mu laay cëgin ak ko indiloon kon maam booy mu laay cëgin goo nga doon fecci euh, indi na ay jafe-jafe ci yow yéen ngeen indiwaat ko maestro Satou ma nuyu maes ba pare jox la sa wàcc wàccuwaay loom de wakaam moo très cher noo def maa ngi fii xëcca mais bett nga ma nag de ah mais nga gën a génne titre bu mel ni man te xaw ma sama copain moo génne woon lii man c'est la nga naan ma son bi na laay def ba xam ñi ko woowee ba dala maa ko woowee nga may xoolaat daal ah. yow yaa way son bi mais eh, noonu la demee xam nga rek mm-hmm. des fois moom mën naa ne euh, affaire mbiru yàlla la quoi parce que nit ki moom day liggéey rek mais doo xam ban jour la la sa liggéey di di di di kii. Mm. di di génne ay fruits. dëgg la noonu laa ko mën a tuddee quoi maa lay nuyu. di nuyu waa 2S. di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci eh, kër yi di ñu seetaan. maestro la. bari nañu ñi toog seen kër et un peu partout yaa ngi dégg téléphone bi boobaak léegi en Afrique et un peu partout dans le monde toog di leen seetaan tey ñoom itam xam naa ñu découvrir eh, ki nga xam ne moom mooy maestro ki nga xamante ne également moom mooy di Satou Satou aski paxe yaa ngi caaroy. xam nga déet kay maa ngi woon poste caaro yi xam nga poste caaro yi. ko ñu entente. yaroo nga fu neex. waaw ah, foofu laa yaroo. moo tax man euh, léeg-léeg man roofoo ak ak ak maestro nii dama koy daan jël boo xam ne danaan ma xëcaa da nga daan bëre. <laughs> tellement que dama daan topp waa Lamsaar ñoom Bulaal ñoom Siteu gaa yooyu yëpp samay gaañ la woon. mu ngi noonu ndeysaan yow ban ko nga dëkk si caaro yi. Ah, maa ngi dëkkee Thiaroy yi mer. Thiaroy sur mer particulièrement nag bu ñuy wax Lambaye diggante Lambaye. Castel a ah, Lambaye. voilà ak waaw diggante woowu rek. Eh, xam naa loolu <laughs> équipe xam naa leen. entendre ak loolu sonaloon naa. mais maa ngi tuxu Bagdad nag caaro yi. caaro Bagdad ah? ndeysaan sama sama koñ rek lay wax. mu ngi noonu maa ngi lay nuyu bu baax a baax Satou bàyyi la yow itam nga nuyanteeg téléspectateurs yi elle est très sa sa yi dafa rafet macha allah. merci macha a de beaux yeux. damay damay wax rek maestro yaa ngi may xool de. ayca <laughs> Satou je te laisse avec les téléspectateurs yow itam nga nuyanteeg ñoom. merci beaucoup euh, Kheucha. di la nuyu bu baax a baax di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan ah du nuyu waa Thiaroye bu baax fa lañ jógee waaw di kontaan trop ci invitation bi aussi. ñun itam am nañu plaisir euh, dalal leen fii nga xamante ni moom moo di euh, ci euh, la meilleure émission de l' année 2021 maestro muy on serait ñaanal lu ñu jël ko 2022 waaye maestro. incha allah incha allah loolu ñaanal ah. bu déwén na leen gërëmaat moo ko bëgg a yàq quoi parce que dafa may ruube te bu déwén na leen ñaaw yàlla mel. yàlla mel daaw donc waaw wala daaw rek bu daaw jéeg ma ne naaw yàlla mel ni daaw. waaw li naan nit ki lu muy def. gëm ko doo ci am tànki ginnaaw dëgg la. donc mënoo def ay effort ya nga xam ne. Hmm. da nga ci da ngay am tànki kanam chaque jour. léegi année ba ca topp nga yokkaat liggéey bi mu gën a bëri ngay amaat tànki ginnaaw donc euh, sois optimiste incha allah rabbi dina incha allah na ñu ngi en tout cas Maestro on va parler de ce titre qui a vraiment chaviré tout au cœur des Sénégalais euh, ce titre vraiment spécial quand on entend la chanson yow da nga jàngee ba eh comment vous avez chanté euh, ce rime là naka ngeen ko defee yéen vas-y dama jàngee ba exagéré ñu may sëyee da particulier bu guddi jotee ba néeg bi wéet may ki lay mu lay jegen yu bokkut ñoom te du ñu yiw yaaro gaynde ci àll bi su jënde bëggee ku yéeg da ngay daanu alaaji kenn du yow saa da nga jógee ba exagéré te nit ñi sëyee da particulier su guddi jotee bi wee maa ki lay feecal mu lay cegin yow mu lay cegin kaay mu lay cegin nga ne ah. man di moori tay la tam xarit Touré Touré ngay kontaan nga ñu bu baax a baax en tout cas une très belle chanson euh, euh, qui a écrit ce texte Ah, ah maestro ñun ñaar la parce que moom texte am moom moo ko bind. waaw ah, mm-hmm. man aussi sama texte ak refrain bi. mais où est-ce que tu as trouvé cette demoiselle elle chante hyper bien fan nga ko gisee. ba mm-hmm. sentir que ci chanson bi ba indil lii mu doon benn cadeau pour les sénégalais. waaw euh, juste damay signaler ne Satou dafa nekk ci label bi ma nekk muy digit euh, digital musique. ok waaw ah, bu nekk géejawaay. El euh, ji moom ma ko présenté woon ne ma dama bëgg mën ma gérer carrière en tant que directeur artistique. ci label bi affaire yooyu mais bi ma ko njëkkee déglu rek dama validé quoi. léegi nag ñuy liggéey léegi <laughs> bi ñu nekk di liggéey def nañ moom ay ay son yu bari. mais bi may waaj sama album bi album bu 8 mars bi. j'ai de faire une chanson def son bi mu laay cegin bi mais dama xamoon ne waruma ko way man dong man ak jigéen a ko war a way ñu proposé nañ ma artiste bu yu bari ci Sénégal yaa nga xam ne am naa connaissance ak ñoom te su ma leen woowoon dinañ ñëw mais wóolu ko moo tax ma. invité ko ci sa ci kii bi son bi te kii wu ma quoi décevoir waaw rëccu ma ko Satou ñu gis la ci titre bi et et ce qui euh, euh, euh, mu doon loo xam ni moom marqué sa carrière mm-hmm. parce qu'on t'a connu à travers cette chanson comment ça t'a fait le fait que mu woo la ni la dama bëgg ñu def duo et que est-ce que yaa ngi ci doon xaar succès bi ni mel ndaxte sénégalais yi jël nañ TikTok bi moom c'était mm-hmm. autre chose les sénégalais l'ont adoré naka nga dundee li ni mel en tant que jeune bi nga xam ni yaa ngi door a débuter sa oui Richard ça m'a fait plaisir vraiment parce que moom nit ku baax la te euh, daf à chaque fois def ñuy poussé si liggéey te liggéey bu baaxee rafet rek après dafay neex nit yi la demee ñu dugg studio liggéey ko mu nice neex nit aussi sama m'a fait plaisir vraiment. nga ñëw fekk benn mu teg benn affaire quoi teg affaire bi man dama jonge ba. exact exactement noonu la demee sax dama ko fekk studio muy. mu naan dama jonge ba egg j' ai jamais Mastro lii la la nii ma ne ma surtout demal nga bind dara. ñëw voilà soo noonu la demee ça a été naturel luñ programme dafa ñëw dama waroon ñëw surprise leneen moo ko fi leneen la moom voilà ma ñëw fekk mu def lool après ñu bind affaire yi mu mel ni et ça fait le buzz. voilà ci studio bi la bindee loolu noonu. ci biir ci biir studio bi laa ko bindee. surtout bi mu naan maïs eh, la wax nag. maestro ma la doon wax. ah yow mu dagg mu ne maïs ñu bëri dañ naa ma lan lay wax foofu chaque jour léegi nag dama ciy jaare wax ko maïs. మాయస్సు శిబిరి విలాలలే xam nga fii yu yaa fit nii fi nekkul da nga may weetal. loolu loolu dafa nice en <laughs> très belle chanson euh, sénégalais yi bëgg ko ba noppi euh, am ci euh, amour ak plaisir mais nga dem ci TikTok bi gis challenge bi ni mu doon demee te leer na ma ni ma du yow yaa ko jël dugal ko wala sénégalais yi jëlal ko seen bopp dugal ko lu fekk que gis li ni mel naka la la def déjà. en fait dama jël. album bi yëpp. jël ay parties dugal ko pour présenter album bi quoi. léegi euh, mu lay cegin bi. Mm. amoon na sam benn grand bu ma ne woon lii mën na taar réew mi. muy maa ngi koy saluer muy tonton Ousmane la tudd. moom mooy mais leen jalgati après parce que mu lay cegin bi comme ko <laughs> ah, ah. mooy ménageur Omar Pène bi ak ñeneen ay bébé Rahma affaire yooyu léegi. bébé Rahma war nga ko xam. bébé ma mel waaw moom man son yëpp man maa ko koy defaral. ah Ah, léegi nag euh, bokk na sax ci album bi léegi son bi am na sax ay tiktokers yu ma woo woon ah. pour ñu def ko mais defuñu ko léegi benn jour laa xëy rek gis benn xale bu jigéen bu tudd foog naa Fatima mu def ko kuy muuru nii mais ni mu defee affaire bi tax ñëpp bëgg ko bëgg son bi may man saa may yeewu rek affaire bi gën leen ko passage waaw moom moom dama koy bëggoon bëggoon naa ko woon sax boole ci clip bi mais amoon contact am amoon kii ma ne noo garaawul mais maa ngi koy suivre maa ngi koy ñaanal aussi parce que tamit euh, succès bu nekk day am ci fu muy jaare donc moom yàlla dafa def ci moom la jaare mm. après ñëpp bëgg ko ba ci tiktokeur yu bëri muy duudu fay naaraa ñëpp def sound léegi day nekk benn fierté te mooy ay dara dafa leer loolu dafa leer des <laughs> jumelles dafa leer <laughs> ci gërëgaar fa ak fay na la ay jumelles li lañ def ñoom ñaar mhm. kenn du leen xàttali ñoom ñaar ñoom na leen yàlla taxaw si si seen liggéey bi ñu nekk ñoom mhm. eh, li ñuy yootu ci TikTok beeg lépp yàlla defar leen ko yàlla mhm. gën a boole xoole parce que Sénégal benn bopp la ñooy ànd guddeeg bëccëg si non xam naa loolu def romb nañ ma démb nii ci corniche bi ñoom ñaar. man ak man bëgg hmm. démb man ak Lasga ñoo romb faa ay dara ak Faynara nii ci tali bi ñu ñu ñu ànd ñoom ñaar romb nañ ma de di lekk maam. ñooy ànd suba ngoon guddeeg bëccëg ñu ñaar. ñaar vraiment benn bakkan la Grégoire ah. wër naa leen de. <laughs> yàlla na jàmm yàgg mais kon mu doon loo xamante ni lu spécial la ci yow. nga gis ni euh, nit def na ko yeneen nit yëpp bëggandoo ko ensemble man ma koy wër xaw ma ku ko way. nekke suma xarit koo xamante ni xamante nañ depuis Joël Duret moo way bi la way mu doon plaisir tey Satou euh, qu'est-ce qu'on ci ci sa carrière ndaxte def nga benn début boo xamante ni euh, marqué nga les esprits mm-hmm. ndaxte nit yi commencé nañ la la xam te nangul nañu la na euh, mën nga way ndax mm-hmm. fii ku ne jaar na fii man sama plateau bi nga gis nii ku ne jaar na fi man ku mënul way ki mën a way ñëpp jaar na fi euh, mais euh, wax dëgg yàlla bi ma la déggee nga way j'ai remarqué et j'avais euh, vraiment de le dire en face de toi tu chantes hyper bien lan nga mën a tëral ci sa carrière tey loo xam ni di nga mën a dab say moroom tax gis naa ni xale nga mhm. comme les Astar comme les Jeyla comme les Jeyna comme les Abiba et autres lan la ñu mën a xaar tey ci Satou Niang waaw mën nañ xaar lu nekk ci carrière Satou parce que voilà ñun moom musique dañ ciy ubbeeku te dañuy ay xale te dañuy dañuy jàng voilà ñu ngi jàng bu baax si musique bi bu baax. on a fait pas mal de, de choses aussi euh, parce que biñ ci duggee ak léegi yàggul yàggul noonu 2020 euh, depuis du, durant ce temps def nañ trois singles benn bi bismillah seconde bi di euh, la violence femme lañ ci way jigéen ñi. deuxième bi lan nga may ñu benn affaire ñu xool. boobu maa ngi ci way. bokku nekkuñu ak yéen pour ngeen ñuy doo suñu xooloon seen jikko fii duñ fi toog ñaanuñu leen jikk lii dafa doy da ngeen ñu mën a respecté mbaamu doy ndaxte nekk nañ seen yaay te jur nañ seeni doom yor nañ kër gi yor nañ leen te ñoo yor seeni doom jaamu jigéen ñi lay ñaan nañu walluwaay ngir yàlla sonn nañu waay de dañu wàllu yoo wuyoo jaamu jigéen ñi lay ñaan nañu wàllu waay te ngir yàlla sonn nañu waay. une bi di euh, troisième bi di benn cover bu ñu def euh, maam bu Massané lañ reprendre wàcc sama maam. bu Massané. waaw ah, Massané mën nga woyam. ah bien sûr demal ma xool ci Massané. maam bu ñu sonnee yow yaay ki ñu diggal waaw. wala saa yu ñu jaaxle yow yaay ki ñu jëli maam bu sonne yéloog ngaay ñu delloo la njukkal baa nga kontaan macha allah yow mama mi mama mi du ñu la wéccoo ndaxte gis nañ ci yow xam nañ ci yow yi nga mel. Une très belle chanson euh, Ma Sané euh, elle chante juste. c'est pourquoi ma ne la est-ce que di nga ko mën parce qu'elles sont tout juste justement euh, def nga nu defal nga nu ko comme ni ñu ko bëggee Maes euh, donc euh, ça fait plaisir yow kenn dootu la na natable ci Sénégal mais lan la ñu mën a xaar encore une fois de plus comme que mu laay cegin gédd na ne naa la na jalgati ñëw ak raas raas dafa xew gët gët gët raas leen yooyu yëpp indi laatal mu leen foog nga indi lu la ñëwaat parce que man dama def benn constat ba nga xam ne études yu bëri Sénégal jamono ji ñu toll ay son yu ñu reprendre la mm. Mm. nga xam ko wala nga bañ ko xam moo lay wan ne ñun dañu war a liggéeyaat suñu côté lyrics. am na bu Dior Mbaye def léegi teg naa ko ci. waaw bu nongolo bi mm, waaw am na bu jëy naa bo saa ma noo ko bëggee bu Ismaïla Lo loolu dafa nice mm. ak yeneen ak yeneen donc mën nañ way mais suñuy way ñuy def ay clin ak suñu musique bi nga xam ne moo fi nekkoon parce que gis nga musique boobu dafa musique bu njëkk ba ak gaa yi dañuy critiquer léegi ne booy yi wayatuñu mm. donc dangay jàng nee nañ il faut imiter les meilleurs pour pour devenir meilleur donc le fait que ñuy imiter ay Youssou Ndour di imiter ay Baaba Maal di imiter Ismaël Lo loolu mën na defar suñu carrière waaw bu ñu am complexe boobu parce que ñoom ñoo fi ñoo musique bi bu accès fii tey ñoom la donc euh, nañu nañu xoolaat débrousser suñuy pas pour mën a avancer léegi man nag li ma li ma leen wax mooy dama génnee album bu tudd 8 mars 8 mars ma ciy sargal jigéen ñi ak son bi mu laay tegin bi ci la bokk am na ay yeneen son sept la hmm. donc dañuy dem rek xool gars xool euh, son yi ñoom tamit ñu mën a xam ne defuma mu laay teggin kese. d'accord mais à part ça nag yeneen dina ñëw. yeneen dina ñëw waaw créativité beeg. incha allah lépp en tout cas ce fut un plaisir de vous servir amis chers téléspectateurs mais également d'accueillir sur ce plateau l'international euh, Satou ñu bàyyi la nga tàggoog téléspectateurs yi ñu jox euh, maestro moom itam mu tàggoog ñoom. di kontaan bu baax Réja ci invitation bi di nuyu waa Thiawré sama waa kër sama yaay tout sa sama maam voilà digital musique di leen nuyu bu baax a baax voilà di kontaan trop trop ci. merci beaucoup ko looy tàggoo. waaw man moom des fois damay ragal nuyoo ndax damay fàttali. voilà <laughs> mais juste pour pour dire que euh, c' est le début d'un grand commencement. parce que son bi neex na am na romb na un million de vues bi. mais loolu moo wane ne dañ dafay dafa ñu war a puusaat ñu mel ne ñu ngi door a commencé gën a liggéeyaat. ñuy ñun tamit ñu ngi waaj yeneen affaire muy satu muy man muy bàyyi Cheikh ak Kabe Yeri ñi nga xam ne ñoo ne ci label bi digital music digit pro ñoom ñëpp ma leen di nuyu tamit ñooñ ma mun naa leen nuyu mais bëgguma limaat à part ça maa ngi <laughs> nuyu képp kuy seetaan macha allah euh, treize onze treize di la nuyu yow di nuyu waa Dede di nuyu boroom kër gi Euh, di wax man la maestro maa fi jaaroon. sa xarit la de borom kër gi. waaw mhm. sa sorte bi daal. ayca <laughs> merci beaucoup a vous amis chers téléspectateurs ce fut un plaisir de vous servir merci a toutes et tous on est euh, bien sûr lundi des na yeneen i jours waaye dama est-ce que férié dama la de gars yi ah kon mercredi laa leen di jox rendez-vous incha ay bongo man yu spécial merci à vous xam naa da ngeen wéytaat mais xoolal jàpp leen ko fii mën a seetaan mën a merci beaucoup à toutes sinon comme que temps bi dañoo xoj Grégoire mën nga doxal ñu dem seetaani journal ci kanam tuuti merci et à mercredi ciao